keroog ci àjjuma bële paase muy euh, loo xam ne rek lu metti la woon ndax nag euh, boobaak léegi euh, ba tey kër gi nit ñaa ngi jaabante nit ñaa ngi ñëw jaale tey nag nekk nekkoon ci li nga xam ne rek mooy juróom-ñetti fan yi muy ci ajjuma bi ñu ko doon sarxal ñëwoon rendre ko hommage ñëw fekk fi ay nitam fekk fi ay nitu démb fekk fi waa Fass fekk fi cosaanu Fass waaye nag euh, di euh, sargal bu baax monument Fass boobu nga xam ne rek moo dëddu euh, tey nag ñu toog ak kenn koo xam ne rek mun nañ ne doomam la mun nañ ne rakkam la waaye mun nañ ne xaritam la sa soon rëkk ci moom ñu bàyyi ko rek mu daal di nuyoo ñuy wax tur bi ak sant bi suñu papa maam Gorgui Ndiaye na xamoon ngeen ko mu doonoon mbër boo xam ne mbër bu xarañoon la ci wàllu làmb ndax nag 101 victoire ku ko am ci làmb doo mbëru caaxaan mu doonoon nag l'enfant Euh, Dakar euh, doonoon koo xam ne rek kenn du ko naatable ci biir euh, làmb ji amoon ci histoire bu riche tey ci loolu la ñuy xuus ñu bàyyi suñu papa mu daal di nuyoo papa ñu nuyu la bàyyi la nga wax ñu tur bi ak sant bi ak lan nga doonoon ci moom. salaamaaleykum waa 7TV ñu ngi nuyu amateurs yi di nuyu spectateurs yëpp mais maam góor gi kenn la woon suñu bi muy jéexal làmb bi koy mag ñi daree ñoom Jibi Mbeng ñoom Bakar Saar ba pare ba ñooñu sonn ñun ñoo ko daroon mm-hmm. muy Assane seexu Assane lii seexam Ousseynou Ndoye moom Assane. papa yow tur beeg sant. am Abdoul Aziz Ba laa tudd. Abdoul Aziz Ba waaw. doguma la papa dañuy dem ci portrait. historique ki nga xam ne rek mooy euh, suñu monument boobu bu ne monument Fass ne l'enfant chéri de Dakar am yeneen tur yoo xam ne dañ ko koy bàkkee tey ngeen di gis lu yéeme ci wàllu hommage waaye tey ngeen di gis histoire u Dakar histoire li nga xam ne rek mooy làmb fii ci Fass euh, ñu dem xooli portrait am euh, suñu papa Mame Gorgui njaay juddu en 1939 li ci topp léegi léegi lay doon ak Awa jàlloo sur la 7TV ci seen émission 7 va du cœur Mame Gorgui njaay champion la woon ci ay années 19 1970 moom nag moo daal di faatu niki aljuma ji ci këram ca fas ginnaaw bi mu amee juróom-ñetti fukki at ak juróom ñu gën koo xam ci ay bàkk yu mu daan def ndax nag loolee bokkoon na ci li tax mu daal di siiw ndakaaruwaay yi bëggoon nañu ko loolu ci noonee nag marqué woon na bu baax a baax géewu làmb yi. mu nekkoon ca écurie Fass foofee nga xam ne da doon ànd ak kii di eh, premier tigre de Fass di mbay Guèye maam Gorgui Ndiaye moom itam amoon na carrière bu yaatu te am xarañte ci bëre ndax nag am na lu toll ci téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñeenti combat dal di am téeméer ak benn ndam ñaar fukk ak match ak ñaar fukk ak ñaari défaite muy bilan boo xam ne lu kenn dul naatable la ba tax na mu bokkoon ci ñi am statu champion yi ndax nag sonaloon na lool ay adversaire am lu ci mel ni booy Pambal wala Doudou Baka Sarr jàmme Diame wala sax champion séeréer bii di Mouhamed Ndiaye ñu gën ko xam ci Robert moom maam gi njaay nag mu ngi dooroon carrièreu mbërëm ci atub 1956 laata moo bàyyi ci atub 1983 ginnaaw bi mu dal di amalee làmbam bu mujj ci kanamu Balla Gaye bu écurie Waalo. jërëjëf euh, papa euh, loolu nekk euh, juddoom jaar-jaaram ma bàyyi la rek nga wax ñu ci li nga xam ne rek yaa ko dooroon ci ba muy jeexal làmb xëccoon leen yéen ñi teg ci wetam. ngeen doonoon ay doomam waaye doonoon ñu xaritam ñu sës si mhm. lu ñu neex ñu wax ko dans le la lutte lu ñu neex ñu wax ko te boo suñu mag la. fu nekk ànd nañ si. li may jëkk a seede ci moom jullit piir la woon fépp fu yegg bu waxtu julli jotee loolu la jëkk a def soog a def leneen lu muy def mm-hmm. ànd nañu waalo ànd nañu Kaffrine ànd naag moom Ziguinchor ànd naag moom Diourbel foo xalaat rek loolu lépp ci ay làmb ci non xam nga gars yi bu ñu daan béy sa ba seen tool yi jeex mm-hmm. ba ñuy jaay seen gerte dañuy woo maam Gourdiou pour mu bàkkul leen dañ leen warul koy fay xaalis mu ñëw mu bàkkul leen. comme moom daal bàkkam amatul woon. déedéet gis nga xam nga sëriñam bii ñuy wax Jamil mun ko jëkk a bàkkoo dëkk bu ñuy wax Njaareem Njaareem bu Jurbel bi Njaareem bi kat ci diggante Dagana ak foofu la ko bàkkoo keroog bu mu ko bàkkoo dafa ay gars yoo xam ne Mauritanie lañ jóge sax ñu ngi ñëw taxaw ci biir géew bi làmb jaxaw na tas tellement ñooñu dañu bëgg Seydi Jamil. mais maam góor gi saa yu bëree ba pare bu dimanche yóbboo mu daan wala mu bañ a daan le lendemain le le dimanche suivant lamb ji day fees mhm. tellement da daan xaxar gaa yi mbër mu ci nekk boo ko daanee dina la tooj boo ko daanul bu la daanee yow bu loolu naka la ko daan defee. voilà xam nga am na benn mbër bu tudd mi ngi ko commencé ci benn mbër bu tudd Mor Palto mu ngi dëkk Segu à côté de Diourbel moom xam nga lu ma ko daan wax da ka daan wax Mor Palto néegi seew <laughs> saa yoo gisee buy guddi la koy raas boo xëyee suba mu lay saf ak toox xam nga kooku jër na yëfam mu jóge fa ñëw ku mel ni Boy Bambara boobu Boy Bambara yàlla na ko yàlla yërëm mu ngi jógee Maroc nekk champion d'Afrique nit grégoromène maam góor gi bëri ko dóor ko mu daanu bi muy daanu mi ngi def nii si suuf si mel ni kuñ far xeer mu ne ko Boy Bambara bi ñu soow candang laa ko dóor yodd ko mu góor bàyyi ko mu tuus xëy ma di jeex. ñu laaj leen ko lu mu jeex mbaa du médaille ba daal réer xam nga ne kooku. Mhm. dafa daan foog kon xaxar bi dafa bokkoon ci stylu làmb ci stylu mhm. làmb mhm. ci bàkku. ci bàkku lom bi wax na ko loolu ne ko Robert Diouf bàyyil forox noor saa yu forox noor yàlla taw ndëbal. xam nga yooyu yëpp kaf la woon rek ci làmb. charmu làmb la woon charmu làmb la woon. mais li ma lay bëgg a expliquer mooy maam góor gi képp kuy mbër fii boo ko daanee daan la. ba des Double Less ak Falaye Balde ku koy mbër rek fi daan rek daan na la ñii trois fois ñii deux fois ñii benn yoon ñëpp la daan. xëy na daan nañ ko mais ñëpp la daan na. Mhm. waaw mu doon nit ku baax na nit ku baax ñun ku ñu àndee ci làmb ji ñun su ñu àndee moom ci làmb ji wax ma Dakar de à l'intérieur du pays daan nañu sax sax ngemb ñu ngemb di di Hmm? waaw te doo ay mbër. du ñu mbër. c'est du ñu mbër. kenn moom ma a risqué benn bés. def ko ci guddi muy asat ngem boo guddi fii xëy suba boobu banquier la moom mu xëy suba waa banque bi da ko wax yow la ñuy gis ci làmb ja yow gisul làmb loolu yëpp maam góor gi moo ñu ci doon dugal. ku ci nekk nag dafa la wutaloon tur. ñii mu tudd leen rukaanata ñii mu tudd leen kaani ku nekk ku nekk mu tudd la kaani. Mm-hmm. bu ñëwee foo xalaat rek. déedéet groupe Kapab moo jiitu. ah moo jiitu. groupe Kapab groupe Beere la jëkk a tudd. groupe Beere après groupe Beere ñu tudd ko groupe capable. li mhm. capable demee ba nga xam ne mag lañu nag. ñun si la ñuy ñëw. ci ngeen ñëw. si la ñuy yéen yéen seen groupe la. seen groupe ñun suñ. wala ay waa Fass la rek ah Fass mhm. gi fii la daan mbappatee. mbay di mbappat fële. ñun dañuy daan wax. xam mais Fass dañoo doonoon benn. benn la ñu woon rek. Mhm, mais dañu mbappat fii ñoom ñu mbapat fee. am na ku xam ne xamul mu ñu daan wax yéen Fass maam góor gi ngeen bokk bien que ñun faas yëpp benn benn la woon. Mhm. mais dafa ñu daan wax Fass maam góor gi. maam góor gi nekk nit koo xam ne mosuma fekk kenn fu fekkul fu mu mere. déedéet man mosuma gis fenn fu mu mere. Mhm. buy préparé làmb ñun la ci wóolu ñi koy wax bëri na meram euh, xam naa ñi ko mos a gis euh, bëriwul ba tax na dañuy dem seetaani ay témoignages daal del soit léegi ci waxtaan bi sur la 7 TV ci seen émission 7 voix du cœur. maam góor gi def na athlétisme foyer France Sénégal maam góor gi def na 10 secondes 6 au 100 mètres góor gi ñu ko gënoon féete mag Ngor Bokkanji lamin Diak. Papa Golo Thiam Alioune Diak avant mu def dara yaayam Kumba Jaw papaam wu Njaay ki gën jege maam góor booy bëri dafa am secret booy def boo xam ne ñeneen waruñu ko gis ni ko soxna Jabel waxee Mbacco Fall yaa ko laaj léegi kañ nga mu mujj a giseeg maam góor gi Njaay maam góor gi ñun la mujj waxal mu ne ma seetal ma sama nopp seetal ma sama nopp seetal ma sama nopp wax ak man ni ma Igor Igor wax na mu ne ma xoolal sama loxo ma gis loxo bi bunti Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wasallam waaw dañ ko bind ci loxo bi mu ne ma xoolal sëñ Babacar xoolal sëñ Babacar ma xool sëñ Babacar mu ne ma am na lum ma dey sa këre la lépp nit bu amul sutura amoo xool bu rafet doo génn si toro jàmbur tey jii ngeen ñëw nii télé télé yëpp ñëw nañu waaye mandute bi ngeen ñëwee yàlla nañu yàlla taxawu maam góor gi bu daan bëri ñëpp dañuy taxaw group yëpp ni ko aji mbaaji waxe jabel assurance abib Gueye Yéri Jaxate bu ñu pare dañu igoor fu ñuy jaar ban koñ la man maam góor gi bu daan bëree six heures du matin la ñuy jog dem géej def lu ñuy def mës na bëreeg Doudou Bakka saar fii ñu toog fii ñu groupe yëpp ma tëdd gëmm ma ne ko hélas bu ñu génn am na lu ñu def fii ci ci biti ma daw ñu dóor ma barre de fer yi dóor ma barre de ma yanu leen dóor ci suuf sulle lu jël lu ñu def ma ñëw ni ko xool mi ngi ni abib Gueye jël ko tey jii ki ka daan arbitre Boubacar Fall Alassane Jibi Dior àllarba Ndongo Maxari Thiam Adrien Fall ñaari soxna yi mu am Ndata Diagne ak Binte Binte Ndoy dama ko naan Binte Ndoy kii ci la bokk mbàcc bi Binte feebaree yëpp ñu ngi toppatoo bint hélas amul xarma yàlla kenn magam Mamadou njaay avant mu gaañu ma waroon nekk. Euh, euh, président CB BCEAO léegi Ouattara bii remplacé ko ay cadre maam gu gi jàng na yore na équipe nationale du Sénégal cinq ans lutte gréco-romaine ah ñu bari ñu ngi wax de mais fekkewuñu de waaye def na cent quarante neuf combats cent une victoire yàlla nag moo ni athlète la am na xarma yàlla ak ñëpp am na jubóog ñépp boo ne Seydi Jamil ñoom ñaar Seydi Jamil ak moom ñoo tëju benn néeg bu la ko nettaliwul doo xam luñ doon def Seydi Jamil ni ko nag dañuy sëñ Babacar Sy sëriñ Babacar Sy sëriñ Cheikh Tidiane Sy moom ak Pape Malick ñoo maase 1939 Pape Malick avant mu génn àddina ñëw na fii seet Pape une semaine ñoo na ci maam góor gi waxtaan ak moom. ñu doon entraîné ñun ñëpp ñoo doon entraîné loo Pape Malick euh, euh, xalif général euh, Murit dana def karaté Baara sëñ Baara Mbacké sëñ Baara quatrième dan karaté Habib Gueye. Youssou Dieng Jabel mbay assurance jog booy bamba si ñun la nekkoon après mu trahir dem waaye li nga wax mooy dëj bi sëriñ Mansour si Jamil ñëw na defal ko loo xam ni képp ku sportif ñëw nga wuy si maam góor gi Njaay maam góor gi demul dafa làqu juróom-ñetti fan nit ñaa ngi ñëw àddina dañ ni wayam sukur la nasran azizam fa sa laa wax huwa samin alimu allahumma fi'il shara fasalimina suñu borom bi subhaanahu wa taala kenn du xëccoog moom kenn du xëccoog moom doom yi yaru nañu teg leen ci raay bi teg na leen ci yoon tey jii aju mbaaco ñëw di xool amul kenn koo xam ni jàdd na yoon hélas gor la xaritu ñëpp la bu daan bëre nag secret yëpp maax moom la am na jigéen boo xam ne war nga wax moom parce que fekk na maam góor gi man la mujj a waxal kii dafa nekk ci gannaawam ci daju Binta ci quarantième jour Binta ndekete man dañ ma tàggee woon waaw ñi xale ni papa Igor a nii waxul ba léegi waxul waxul jékki-jékki rek Igor Igor Igor waaw Adja Adja Mbacco xool ma moom góor gi soo ko wax wallahi wallahi mu commencé waccang foncong li ci lacar waccaw cam wax bi ñu daan kàll bi ñu daan kàll dafa daan wax ku bitu kama ku bitu man kaana yulub fas buri kama sa buri buri mëkkanding buru soyaanding may xar seen xol ngeen xal seen démbeen géeju mbaam nguraan boo ca xuus rek génnoo tooyoo doo gor xare gi yàggees na ko sàjjal dawuma daaw kon du ma daw ren ñun groupe capable waa capable la baax capable baax bu ñu demee Tiwaawoon benn groupe lay doon te groupe boobu kenn du ko senn te jëm ci kaw la ñuy jëm Serigne Cheikh Tidiane si bu muy def gàmmu fii Ndakaaru ah mu ñuy def gàmmu Ndakaaru maam góor gi Ndiaye Jabel mel assurance Diop Serigne Cheikh gis ni ah làmb kat araamul maam góor gee ngi ñëw ba muy dem 58 jëli gaynde ga gaynde ga Serigne Cheikh ubbi gaynde gaynde gi Serigne Cheikh nag dañ koy tudd boo si jël Seydi Jamin waxal Serigne Cheikh Ahmed Tidiane si Gaynde faatma ñëpp bëggoon maam góor gi maam góor gi bu gaam màggal daan am mooy bëre avant sëñ sëñ sëñ Fallou ñëw seetaan ko ba noppi delluwaat Touba te bu bëree day daan yéen nag télévision yi mosuñu am déception ah si amoon nañ déception parce que contre Robert Diouf man maay wax HLM la woon. dañ dem HLM ñu dugg ci bunt bi Robert xotti baas bi dugg maam góor gi bu ñu bëreeg Robert dafa am ko taxaw ci gannaaw maam góor gi maam góor gi arrière rek daal di daanu Robert tëb dem ni moo ko daan man ko daanu loo ko parce que dafa am ku nekk ci gannaawam ah maam góor gi fakk salu ci moom daal di daanu waaye bu ñu bëreeg Robert sañ ma wax lu mu ko def kenn du xas kenn day bàkku mais du xas kenn te li mu wax yëpp dëggalee doon maam góor gi waaw maam góor gi day boobu ba def moom dafa ne mën sooy nga sooy nga pakati na la daan xoolal cent une victoire kan moo ko am Falaye Balde quatre vingt dix la am ca falaay maam góor gi du balas yëpp ñoo ñoo leen dalal Mbaye Guèye ñëw nekk xale bu yaru ku baax mu ngi dugg ci ñun di Caravansérail 1968 Mbaye Guèye boobu mbappat la woon maam góor gi aussi organisé mbappat fii man ma bëreeg Moussa Morodi Moussa Morodi mënul ma dara Morus bëre def athlétisme Usain Bolt temps yi mu doon def temps yi muy def nii laa def 1967 19 secondes 6 tey su ma demee ministère des sports dama leen wax noon keroog mais kaa set seeti maam góor gi Ndiaye dara xewul woon ministère kaa leen seeti maam gi Ndiaye am na jigéen ñi taaroo ñu nekk foofu ñu bëggoon si ñëw ci maam góor gi Ndiaye te ba léegi bàyyiwuñu maam góor gi Ndiaye doomam yaa ngi nii. jërëjëf euh, muy lu riche muy euh, yoo xam ne boo ko déggee rek sa xel day dal. boo ko déggee euh, da ngay am euh, passion ci fàttaliku làmb démb euh, papa ñu gis tey jii ni nga xam ne rek noonu la ko nit ñi taxawoo ci ni nga xam ne noonu la duddoo ba ci sii di Jamil ñu gis niñ ko taxawoo lan ngay àddu ci loolu. xam nga Sidi Jamil ak Mame Goor gi c'est une longue histoire. Mame Goor gi Sidi Jamil rek la mos a bëgg ba mu nekk Fass. yàlla di dox di dox ba benn bis mu bëgg a def ay njàng ñu ànd ak moom groupe mu dee ne day dem ci Seydi Jami pour mu wutal ko bés mu tàggu ji ko ci bàmbalu ko keroog suñu benn xarit bu ñuy vie fay keroog la jël wérdu foofu suñu ñan ñun moom on était presque très jeune ñeme ñu woon wérdu bi mais vie fay boobu moo ko jëloon foofu la maam góor gi commencé nag muy muy def rek Seydi ak Seydi Jamil ñoo si jiitu mu nekk taalibi Jamil nekk taalibi Cheikh di pratiquer li muy loolu moom maam góor gi mën na. yaa ngi doon wax ne lu lu lu bës foor foor lu bës rëy rëy euh, bu waxtu bi jotee mu bàyyi lépp. day julli fu nekk njaareem boobu lay wax ñu fa yegg sept heures et demi dañuy yegg avant muy nuyoo sax dafa jàpp di julli mu soog a dugg di nuyoo ci biir dëkk bi. xam nga ne kooku i faut nga am foi pour mën di def yenn yi dem nañu fi dëkk bu tudd dem nañ fi Kaffrine waa Kaffrine dañuy wax ne doyaluñu làmb ji dimanche la dañu bëgg a organiser beneen dimanche ba ba sa topp pour Mame Goor gi parce que xolom moo baaxoon xolom moo baaxoon il s'agitait avec tout le monde da mm. daan kaf di ree Mame Goor gi foo ko fekk day re waa Fass yëpp ñëpp xam nañ ko ñëpp xam nañ loolu ci nit ku baax la woon nit ku simple la woon. Euh, papa papa bi muy nekk ak yéen fin de carrière la woon. waaw laataa ñu ñëw ci question boobu sax dañuy dem xoolaat témoignage ndax nag témoignage yi bari na ba tax na tey waxtaan bi sax du mën a gudd gudd boobu ñu dem xool yi daal di ñëwaat loolu yëpp ci yéene borom mbës bi nga xam ne rek euh, li mu def ci Fass rëy na ci mbaax euh, ci yaatu ci kaf ak ci li nga xam ne rek euh, mooy maanaam euh, dalal ay xale ba tax na ñu dem seetaan ay témoignages dans les soirs léegi léegi sur la 7TV. alaaji maam góor gi Ndiaye man Awa laa tudd sant Gaye Adja Awa Gaye paa bi wëllëreem jigéenam bu yàgg yàgg ba ma amee ans moom mu am 10 ans ci la ñuy ànd ndax fii ci Fass bi. ñu ngi bi ñu fi ñëw c'était en 1945 ci la ñu sañ ci la ñu toxu si fii ñëw fekk fi Pape Thiendou Ndiaye ak maam góor gi booba diggante bi amul tali suuf rek la woon ak raay bu jóge fii ba carrière fii yëpp àll la woon ay bukkeek ay till rek fi nekkoon ba faas kenn bëggu ko léegi maam góor gi sunu kër moo doon këram fii moo doon sama kër ñu ne Pape Thiène do ana maam góor gi mu ne seet leen kër Awa Gaye kër Binta Sène sama yaay sama yaay bëgg ko comme ni mu ni ñu bëgg mu bëggoon maam góor gi sax dañuy defoon ñun maam góor gi rek la jur wala rek googu nag moo nekk sama diggante ak maam góor gi depuis 1945 ba léegi booba xalaatul nekk mbër sax booba xelam xalaatul nekk mbër ni mu nekkee mbër dafa jékki-jékki yàlla xiir ko ci mbër ndax da koo doon da daan ànd ak ñun bu bàkku amee day dem di bàkku ji ba finalement mu ànd ak mbër yi dem di bëri ji làmb ji bu bëri ji làmb ji ñun jigéen ñi nekk face bi kenn du añ kenn du reer ñun ñëpp dañ daan taxaw suñu ko daanee dañuy fanaane jooy ba ba set bu daanee dañu fanaan di fecc di fecc ba duñu taxala lekk la ñu nekkoon ak maam góor gi ba mu toogee ba nga xam ne yàlla xiir na ko ci takk jabar mu takk bintandooy ca cëriñ indi ko fii mu sëy si ba muy sëy si man mi maa wàcce Binta Ndoye maa wuti basang lal ko fii yëpp ba fi la ñoo wàcce Binta Ndoye maam góor gi bu daan bëre ji man Awa Gaye mii maay wër faas kër gu ne dinaa fa dugg jël fa sër ba ci sër bii ci photo bii bii ci kanam nii sama sër la man mii sama sër la ndax keroog moom ma ko fàttali waaw kay mu ne ma awa fàtte nga sër bi ma ne ka ah, sër bi de mu ne ma fàtte ma ne ka ah, sër bi de fond bi noir la mu ne moo am moo amee jaune ak vert ma ne ko wax nga dëgg sama sër la woon maa la ko joxoon bu ma see bàkku ba takku ba defaru fii lay taxaw ci buntu bi ne ma awa noo ma gisee ma ne ko yaa ngi melax moo ànd ak ñoom boori ànd ak état major am ak góor gi fi toogoon tey mu ngi noonu génn léegi kooku moo yoon cumi kaay maam góor gi moo toogoon fi bokk ak yéen añ man nag cër la ma may ci këram cër bu rëy sax xale yëpp bàjjen lañ ma woolee ni ma yëgee dese bi ni ma métti sax dama defe a ah, méttiwu ko kenn ndax damaa jooy Binta ndooy jabaram bu doon sama xarit lenxe lu xaw ci kër gi yoonam newu ci wóor na ñuy toog lu xaw ci këram may taxaw maa ko réglé ba mu jeex tak day dem tuju ci néeg bi ne sama yoon newu ci ba may dem màkk ba muy dem màkk moo ñëw tàggu ma fii ne ma awa de damay dem màkk ma ne ko Adja Binta soo demee nag ma ñaanal yal na boo demee ñaanu ndax ñun tam ñu dem Màkka ñu nekk fi lëngoonte jooyo jooy ba soon na ñaari fan lañ ca teg Leena Jaañ yónnee ma billet Màkka ma ànd ak Binta Ndooy dem Màkka nga xam ne ki yàlla def noo boole Binta téye ma ma téye ko lu nekk sama kër moo koy taxaw moo koy dox moo koy wax lu wax ne ci xalem yii maay taxaw maay wax maay dox yàlla atte mu jóge fi mu ñetti fan maam góor gi dem lu ma metti la nag yàggul yàggul lu ñu lu ñu rawante bariwul motul un mois wala nga xam ne ci la toll rawantuwul ajjuma bi ñu mënee paa bi topp xam nga mu ngi tombeek affaire yi manifestation yi te sama néeg ba sama tànk bi dafa lakk ma toog ci sama néeg toog yëguma ci dara sama doom bu góor ñëw dama yaay may naa mu ne ma yëngali xew ma ne ko lan moo xew mu ne ma a ah, yëngoo li xew ma ne ko leen mu ne ma ah kon nag ma dem ma ne ko lu mu ne ma pam maam góor gi ma ne ko mu ne ma nelaw na noonu la yuuxoo ñu tëj ma ci néeg bi nag dañ ma tëj yóbbu caabi ji ne ma doo génn ndax soo génnee lakkit mo seen yaa ngi ci biti te yow wéruloo ñu tëj ma ci néeg bi ma ne ca buntu ba di fëgg di yuuxu di yuuxu di yuuxu di yuuxu ba ñu ubbi ma buntu yi bañ ma indi fi ci kër gi xamoo fu ma aw ndax di laa mujj wax ak moom fii mercredi mu ngi tëdd fii si lal bi booba a la wax booba voix bi dem na mu daay fii laa toog mu daay mu daal woo daay ma ah ah ah ah ma daal di woo kii sëtam bi euh, mu ci kër gi léegi mu romb ma ne ko kaay mu ñëw ma ne ko fas yee ngi toog fi doom bu jigéen ma ne ko sa maam lan sa maam day ngi wax lan la ma ha ha ha mu ne ko Awa Gaye mu ne waaw mu ne mu ne ko lan mën a boo mënul wax mu ne nañ ko jox biig ak fooy am na nag lu mënoon bëgg a wax moo ko yàlla rek a xam mu jël biig bi ak fooy bi mais mënul téye biig bi biig bi dafa wadd ci loxo yi man te mënatuma téye sama bopp ma jooy mercredi li ma yëg lu métti la mënu ma ko wax doom li ma yëg ci sama xol bi maax yàlla ak yonte ba a ko xam ndax métit ci xol lay sax te nit soo nit su fekkee toujours nga di ko gis nga miin ko suba ko jot nga ko gis bu jogee ci yow dina am lu jóge ci yow loolu la ndax maam góor gi sama genn walla la bokk nu ndey bokk nu baay waaye genn wàllu baraaduraal laa woon te man dama dama dama lutter lutter lutter lutter ba sonn j'étais parmi les porteurs de pancarte du général de Gaulle du 26 août 1937 à Dakar j'étais parmi les porteurs de pancarte li may gën a jooyloo lu xew lu mës a xew ci kër gi bu dee ngénte wala muy ceet wala muy xew danaan bi naan binta jabat ji yow xamoo dara demal woo yew a gay bu ñëwee fii man maay toog maay taraase maay wax maay def su ko defee mu ne ma kii ma nekk yaa ngi tooñ jàmbur daay dem su ko dee binte ne ma see yéen a xam ak seen xew sama yoon newu ci kër gi lu fi ne mbaacoo nga nee di ma dégg du ma bàyyi ma fen dem ba muy bëre li ñuy fàttali ko moo di bu mësee bëree ba nga xam ne daan na ba gañe fii lay taxaw ñun ñëpp lay may xaalis loo fekk ci yaa ko moom ku nekk dana la bëggal du benn ki du bañ bu bëgg kenn ko mer bëggul kenn ko mer ku ma gis day defe ne rek yow mii yaa ko gën a jege nitu jullit jullit la woon ku am mën la woon ku bëgg njaboot la ku yiir njabootam la li ma ko ñaan yàlla na ko yàlla xaare àjjana yàlla na suuf ci kawam yàlla bu ko cat jiitu ci bàmmeel maam góor gi ñun ñun faas boog ñu fekkee jeunesse am duñ ko fàtte ilaa yow mi diini waaw loolu laa xam ci moom jërëjëf jërëjëf doom jërëjëf euh, papa yéen yéen a ngi ànd ak ñoom ginnaaw bi euh, waa groupe euh, coupable pare waaw ngeen ànd ak moom daanaka ci fin de carrière yan combat yu yu spécial ngeen fekkee ak moom comme rek fekk nañ combat spécial la moog Robert Diouf xool nga fi HLM nekk léegi. Mhm. marché HLM. waaw parce que maam dafa daan Robert. arène eh, ma Robert da ko daan stade Iba Mar Diop moom mu daan Robert arène sénégalaise ñu bëgg leen waat boole. ah fa la marché HLM nekk léegi. ñu daf leen di bëgg a boole. waaw arène fii la nekk ci Fass. waaw ñu boole leen foofu dañuy defar ay saket ay saket la ñuy def rek. boole leen fa keroog Robert moo ko daan mais ñoo préparé ndoo combat bi ba mu jeex takk takk takk. Mhm, ak ban. contre Double Less bi koy Double Less benn combat la bëre moog Double Less ji boobu ñun mënuñu ko fexe ba gis ko même c'est plus proche mënuñu ko fexe ba gis ko boobu mu ngi dëkk gël tàpp lañ ko yóbbu ci benn kër Habib Gueye ndem si yàlla entraîneur judo ko moo ko yóbbu woon këram goo xam ne dañ ko ko alloué woon te dëkk gu fa. Mhm. rien que pour préparer combat pour daw affaire mystique yi évidemment loolu foofu la loolu lañ leen moom ndar mu comme fa combat bu mag ànd moom Thiès mu bee fa encore ak Robert Diouf fête de l'indépendance ay combat yu bari bi nga xam ne nag a importance dafa bëri ak Boy Bambara fekk mu daan Boy Bambara daan fas yëpp. daan ko daan Mbaye Guèye daan góor mag fay daan faga deux ñu boolewaat ko ak revanche mook booy bambara maam góor gi nee nag combat bi nag du ma jox benn manager mu mooy wutal sëriñ maa koy wutal sama bopp kooku bés boobu mu ngi liggéey sones Cheikhou Assane bi la ñu àndal ak asférié ak man ak keneen ñeen iso unoté kat ñu def ci benn góor gu nekk caaroy xam nga lu ñu góor gi wax man xamoo naa ne di nga ñëw fii parce que yàgg naa la bëgg gis. waaye du ma la laaj dara lu seer wax ak moom daal di ko calculer ay sarax moom ne sarax yi vingt neuf mille mu ko fàtte mu ne ko vingt neuf mille franc la te doo ma ko jox mu ne matière nga may defal boo daanee soog a ñëw jël ci. vingt neuf mille franc maa ngi génne vingt mille franc jox ko cinq mille Serigne Bass lañ fi amoon yu bëri xam naa yooyu yooyu la mag. Mhm. mu jox ko ci deux quatre astafurlah muy vingt mille. mu dem. dimanche dóor booy bambara mu daanu. Hmm? mu dellu sa Thiès ca mardi ba la dellu sa góor ga jox ko vingt neuf mille franc booleeg vingt mille franc yi te góor gi vingt neuf mille franc loo xool. yooyu c'est des combats spéciaux yoo xam ne Dakar yëpp ça faisait courir tout Dakar. Hmm. kon daal làmb amoon na taar. amoon na. maanaam taaru làmb démb. xam nga fii Fass làmb dafa nekk suñu environnement culturel. seen environnement culturel la parce que fii dans la Grèce antique ak feneen Fass rek nga gis mu am juróomi lamb Fass lambu joolaa ngi fi si ginnaaw beneen lambu joolaa nga fule arène sénégalaise nekk fi arène Modou Xulli nekk fi nga jéggi tali bi dajeeg arène Bécaye 3. Mhm. xam nga amul tënk dogguma la papa waaye dañuy dem seetaani témoignage ci làmbu démb aussi daal dellu siwaat léegi euh, toftal ci yeneen témoignage ndax nag témoignage yi bëri na lool lool lool lépp ci suñu pap mi nga xam ne moo fi dëddu euh, muy suñu pap maam gi Ndiaye euh, ñu dem seetaani dellu siwaat léegi sur la 7 TV ci seen émission 7 voix du cœur. man nag jigéenam laa ndax jigéen bi mu ngi jógee ci sama mag bu moo daan ànd ak moom moo tax li ma jàppe mooy jigéen bañ naa ko su ne allo li muy jëkk a wax mooy kooku Mbaacu Faal jigéenu maam góor gi Njaay maam góor gi Njaay góoru Mbaacu Faal nii rek la may woowe ba ci le 22 janvier la ma mujj a wax lii ñu toog trois jours après ma ñëw ci quarantième jour ki nga xam ne mooy Binta di sama xarit mooy sax naam ma ñëw fekk mu tëdd moo ma sant seen rek da daan góor góor jigéenu maam góor gi njaay ma di ñëw fekk mu tëdd ne pat di ñëw tiim ko ko lan la mu daal di jàpp ci put gi nii daal di ma ne fii mooy metti mooy metti ma ko ah, ay waaye bul wax loolu fii nag wax ko ndànk waaw foofu nag buggatuma dara sax ma di ñëw toog fii comme nii ma toogee fii laa toog mu tëdd ci lal bi noonu ñu def quarantaine jours yi ba ngoon ma daal di koy ñëw te sama loxo nii ci bopp bi mu daal ne xifit ndeysaan daal may xool ni ma daal di def mu daal ñaan daal di koy tufle daal di dem bu ci une semaine ci bi day dog naka lay dog rek doom ju jigéen ji muy faat si moo fi nekk mag léegi ci jigéen ñi mu daal di dem daal di may daal di may woo dama yaay sama papa dem na de ma ne ko ah mu ne waaw ma ne ko kañ mun ma léegi léegi mu ngi nii génnagul néeg bi sax génnagul néeg bi sax mu ngi door a dog nii waxu waxu bëggatuma dara jooy naa nag jooy naa ndax sama xarit ba pare sama xaritu borom kër la woon ba xale 18 ans lañu commencé ànd muy Jabel Mbay ku dégg maam góor gi Njaay rek dégg nga Jabel Mbay ndax bañ na ko ba naan bàkku ba xam ne Jabel Mbayum Faan nee ñu fi béré maam góor gee ma leen gën a waaw moom la ko naan bàkkoo am doom ju góor tudde Jabel Mbay Jabel Mbay am doom ju góor tudde maam góor gi Jabel Mbay ngi fi ci kër gi fii maam góor gi nga fee sama kër ay jabaram a ngi ni toog nii den ak man waaw ah. ñu xaritoo nekk xaritu benn bakkan du ñu tàggoo benn yoon xanaa dem gamoo moo ko tàggaleeg moom te bu jógee gamoo buy xëy suba rek jubal si na buy xëy suba rek ñëw waaw rek ñoo ñu boole bëgg na ma mbëggeel goo xam ne bëgg na ma ba jël sëtam tudde ma ko mooy assan mi ki leen indi nii naa leen wax leen sama yaay ji doomam dafa juddu taawam mu ne ko panget njëkk yi ñëpp a ngi toog mu ne tudde naa ko mbaajo daan na géwél bi demal génn ci biti ne leen tudde naa ko mbaajo géwél bi na ko du ma génn njëkk yi nu ñu mën a toogee nga jël doom ji di ko tudde mbaajo mu moom laa ko tudde xale baa ngi jeeglam ngi fii ci kër gi tey ji yor ay doomam foofu mbëggeel mënu ko paase maam góor gi bëgg jabel daaw la jabel gaañu rek mois de novembre daaw waaye ñëw fii mu ne maa ngi door am naqar deele naa ku nekk nag waaye maa ngi door am na xar tey jabel mu dem bàyyi ma fii tey laay door am na moom maam góor gi laay door am naqar nga xam ne kon ñoom seen xarito dafa sincère oon ñoo bëggante te yàlla tax waaw. mu ngi noonu xam naa booba de man xam naa ne xale laa li ma ci xam bariwul ay làmbam fii waaw ndax daaw ma ñëw ci làmb yi aussi ba muy commencé bëre mooy ni ma la wax rek booba man xale laa. ñuy àndoog sama frère bi àndandoog moom day àndandoog jabel mais boobu sëyaguma ak jabel sax tax booba xale laa waaw waaye nag dañ daan daw di ci topp rek ndax man le 22 laa mujj wax ak moom waaw mi ngi tëdd nag xam nga da ku masaane ñëw dalay tooñ ku ñëw mu jaar ci sa tur jaar ci sànq sant mémoire la am du fàtte nit te jàmm jàmm rek la am man mosuma gis fu mu mere ba ma ko xamee ba léegi damay xale ba tey maa ngi gis mais mosuma gis fu mu mere wala nit ñëw te accueillir la man mosuma ko gis ku ñëw dina tudd sa tur dina jaar ci sa sant ak ku mën a doon du fàtte nit li mu xam mooy fo kaf ak nit ñi réeg nit ñi doomam dee na day kaf su koy sama kër moom moo koy ba nga li ngay def waay bàyyi li ngay wax moo koy jàpp loo bëgg ma def ko ah du wax ak nit ñi ma ne ko waaye da nit ñi sa xale bi dafa sa doom dafa dee doo wax ndànk ma ah wax naa ndànk waaye damay nuyu nit ñi ba bi binte mii gaañoo ne aawam bii wallaay terew ma koy foog leen dama koy xool damay yéemu ci yàlla ndax nit ku gëm yàlla dafa gëm yàlla dafa ragal yàlla ku gëm yàlla la ma ñëw taxaw taxaw fii ci wetam mu daan mën a gis nga sama photo bi maa ko gis naa photo bi kay ko gis naa ko de mu ne xam nga ne àddina mu benn solo moo nekk àddina mu benn solo xam naa loolu waaw booba tëddagul sax feebar ndax booba mi ngi wax mais avant quarantième jour yi daal ci la noppi trois jours avant quarantième jour soxna si la noppi nag waxatul waaw waaw ci la noppi waxatul waaw waaye nit waaw nit ku baax nit ku baax nit ku gëm yàlla nit ku am diine nit ku am lislaam julli wird loolu la xam bañuy xale àndandoo ñoom ñëpp loolu la xam grand place seen grand place ba groupe capable lañ ko tuddee woon mënuma lim ñëpp ndax su ma ko limee léegi ma fàtte dun li Bakar Sarr assurance Diop groupe gi la bokkoon ñaaki fay ñoom ñëpp ci groupe gi lañ bokkoon waaye macha allah mooy fàtte bu ma limee rek damay daal di faate waaw Ndiogu Guèye ñoom ñëpp ci lañ bokkoon ñu tuddee seen groupe bi groupe capable xam nga daan bëri daan wax bu daan bàkk ndax man capable naa waaw capable googu nag moom lañ jël nag tuddee ko groupe capable. te ñoom ñëpp ñu ngi tegaloo nag fi mu ne andi at yi quatre ans yi la ñuy tegaloo di dem rek presque jeex nañ moom moo ci desoon jeex nañ tegaloo rek di dem wallaay affaire dafa metti dafa metti metti na torop metti na torop. waaw ñett na soob yaa na ko yàlla xare àjjana te bu ko cat jiituwul ragal nañ ko waaw ndax nit ku baax du mer fo rek la xam kaf rek doom ju deeg jabar ju deeg moom dee la moom faalawu ci loolu ni mu day fawee yow bu la gisee noon lay fawee yow ni mu lay nuyoo ne lay nuyoo ni mu lay accueillir noonu la accueillir amul dara lu changé ci moom waaw ak gëm euh, sëriñ Babacar gëm El Hadj ak Seydi Jami. jërëjëf euh, nga ne euh, juróomi làmb. juróomi làmb. Mhm. ñun rek ñoo ko Fass rek moo ko fi am romain yeeg ñoom ñëpp amuñu juróomi la arrêt benn Fass Fass bii ngay gis mu am kenn ku am moo tax koo fi dajee sax boo ko nee nii rek mu indil affaire wu bëri xëy léegi mu tëral la daaneel. Mm-hmm. maam dañ ko namp. dañ ko dañ lu ñu leen nampatal ko quoi. Mm-hmm. dañ ci màgg yaru ci. ainsi dañ koy bëgg par force. Mm-hmm. Euh, moom nag mu nekk monument ci fii ci Fass. monument la fii moo nekkoon fekk rakam mbay Gueye ak Faga 2 ñooñu tamit déggaloon ko trop mu nekk seen kan mag fekk Fass fii benn mbër moo fi jiitu muy biraayum Fall ñu koy wax Boy Naar kooku moo mag Mbaye Gueye moo mag Moustapha euh, moo euh, mag maam góor gi. ah moo ko magoon. moo ko magoon ak après moom dafa teel a bàyyi nag. maam góor gi jël relais bi papa mi ngi judd 39. oui 39 kooku moo ko moo ko magoon. kooku jël relais bi ànd ak Mbaye Guèye ak ñoom Fagade. te nag benn affaire am na de gis nga maam góor gi su lay bàkku yow boo boo boo xatee xol rek indi histoire. Hmm, da lay xaxar. da bu méttee métti métti. moom ci bàq ba ak après combat bi yëpp da daan xaxar. après après le combat. boo bëree dimanche. dimanche ba su toog la ka daan def. bu daaneeg buñ ko daaneeg. kon loolu fair play ci wàllu làmb day ñëw fair play la woon ci biir làmb. maam góor gi bu bëree dimanche boo daaneeg bu daanul lépp dimanche prochain bu ñu boolee sa saret bu yàqu ak yaawu jaal sax làmb ci 3 heures mu fees nit ñi bëgg a déglu rek ay li muy wax. Ah. waaw. maanaam danaan feesal bësam feesal bësu jàmm. voilà. voilà kon icône la woon ci làmb. icône may maam la man personnellement man ànd naa mag moom ak yàlla ñu dem Foundiougne. waa Foundiougne ñoo ko waroon dafa ñoo ko invité woon pour mu bàkku foofu maak moom rek ñu ànd Foundiougne ñun ñaar ak yàlla parce que ñi ñoo doon àndal ñëpp ils étaient occupés ñu dem fa mais lamb jooju dafa mel ni juróom benn maam góor gi ñoo fa nekkoon hmm. ah oui tellement lamb ji dafa neexoon lamb ji dafa neexoon kon moom dinañ koy déplacer pour bàkk kese moom rek lañ koy def àll bi bu demee uh-huh. maam góor gi li mu bëri ci àll bi bëriwul uh-huh. dañ koy fay rek. mu ba ñoo bàkku mu bàkku si. Mhm. Euh, kon loolu day wane valeur u làmb démb. voilà dina am xaxar dina am. parce moom rek maam Gorgui moo fi jëkk moo am rek moo ko fi dese woon takk ay série yi ren di segg sol ay ver sol à mort wattu di bàkku gis nga mi ngi daan at ah. ne style am la woon. voilà gis nga maam Gorgui dem xam nga nu ñu ko daan wooye donse donc lañ ko daan wax xam nga li indi donse bi mhm. dafa alter woon ba takk sol ay booy doole yooyu si ñoom lañ jëkk a gisee nit ku yenu ay entraînement ay weñ ba am ay doole ñu ngi ko den dafa kër Ngor ba kaj yi stade Iba Mar Diop moom ak ñoom mag suñu benn mag bu ñuy wax fagga un moom it si temps wu maam góor gi la may dafa teel a bàyyi làmb génn naa dund sax kon tey jii euh, mu dëddu euh, bu ñëwee rek ci dëj bi ni mu demee euh, àjjuma bële paase la woon naka nga ko yëgee muy sa papa di sa xarit di koo xam ne dund ngeen lu wër. dama toog heure bii tembe kii moo ma téléphoné ne ma yàlla def na liggéey kii moo ma wax heure bii tembe heure bii tembe nit ñi nag taxaw di wax ne la création mooy seen lacrymogène yëg la non non non non waaw ndax rumeur boobu dégg nañ ko. waaw non non non loolu amul loolu amul. Mhm. maam góor gi mi ngi doon agoniser sax deux jours auparavant. Hmm, gis nga ko gisoon nga ko. non non gisuma ko am na fali loo xam ne famille bi rek ñoo koy gis. Mhm. du dëgg am na ñoo xam ne dañuy wax ne lacrymogène non non non fi ñu koy yëngu fi ñu ko dugaloon ngelaw sax du fa dugg ba lacrymogène di fa jar. parce que dañ ko jëlee woon ci si néegam yóbbu ko néegu doomam ci kaw. voilà mais yàlla rek moo ñëw ak ay mbiram. yàlla ñëw yàlla ñëw mais avant boobu kañ nga ko gëj a gis papa. xam nga sa et est décédée 49 jours avant moom muy décédé moom. Mhm. mais xam nga yaa femme bi dafa décédé deux semaines après mu hospitalisé. moom moom ah mu. digganteem ak euh, soxna soosu. Euh, ndax mën nga ñu ci wax ndax dégg naa ku sori la woon ci moom. ku sori la woon xoolal kooku kooku mooy yaayu ñëpp ñëpp la uufoon ci kër gi. maam góor gi daka daan bàpp boo bëggee jigéen du am taar da ngay dem fas nga laajte Bintu Ndoy. ndeysaan Bintu Ndoy tuñ ya da koy raax ba ñu weex mu def ci ba bu or xam nga ne kooku. Mm-hmm. sa jabar nga wax ko loolu xam nga loolu tiitar la. Mm-hmm. noonu la daan defal kooku nit ku baax la woon. kooku nit ku baax la woon. la dernière fois bu ñu ko gis maag kii ñoo toog fii mu bu ñu fii femme boo xam ne amul dara lu mu defal kenn moom mooy ñëw rek defal boppam. kër ga moo ko yore moo ko defal yàlla na ko yàlla xaraajal. waaw. bi mu dëddoo après gis nga ko ci dëj bi. ci mam góor gi. Mm-hmm. dem na chaise roulante lañ ko def dem yóbbu ko ba armée ya mm-hmm. ñu ñëw teg ko mu taxaw nit ñi di ko jàll jeté à. ñu dem témoignage boobu ndax dégg nañ ko ci témoignage euh, léegi léegi lay doon laata ñuy tàggoo mhm. sur la 7 TV ci seen émission 7 voix du cœur. waaw ci juddu bi dafa bokk ci ndakaaru bokk ci fukki penc ak ñaar bokk ca dem bokk mbot bokk guy salaan moom maam góor gi Njaay di la bu nag piir nag bokk ci fukki penc ak ñaar kooku mooy sekk njaatumaan abu dem ba bàyyi maar ci la bàyyam tudd. muy waa Ndakaaru di waa cap ci réew mii nag dafa tekki dara ndax tey jii monument moo daanu muy kan muy maam Gorgui Ndiaye tey bu mbéy gi demee ba bëgg làmb maam Gorgui njaay la Tigre de Fass maam gi mooy Tigre de moo leen jox Tigre de Fass bi Tafa Gueye ak Double Less Double Less bi muy ñëw moo ko dalal maa fekke fii ci Fass ba Double Less ñu ak saagam kii moo ko dalal maam gi Ndiaye du ko alaji Alsaan Njaay alu naan ko l'enfant chéri de Dakar maa fekke ak Lamine Diack maa ko fekke boobu temps dafa daan ñu bari dafa tër séeréer yëpp daan leen jeexal séeréer yi at moo Sarr Modou Ngor Sarr Massiré Sarr Doudou Bakka Sarr Robert Diouf ñu ñëpp tël na leen ku fu daanul amul ba ci Falaye Balde moom maam góor gi Njaay muy un grand champion ci juddu ba civilisé lool musul wax lu ñaaw nag sa juddu ba kooku mooy lébu ndakaaru mooy borom fukki penc ñaar sekk njaatu maan abu dem ba bàyyi maar dama wax ni boo nee maam góor gi ndakaaru ko wax ba cëddeem ba mbot yàq jëf kuy salaan foofu la maam góor gi bokk di bu pire nag di bu pire moo tax ma mën a wax ci moom ci carrière dafa daan ñëpp ku fi mën daan na la boo diggaa ko groupe capable booba temps mi ngi ànd ku ñuy wax Alaaji Mbay mu Ibrahima Mbay cëggal tàppe maa fekke doomu ndey maar mu nekkoon xaritam nag dañoo passé xarit mook Jabel ndax nee na dañu toog barki Dembo Ndiaye yagul dara mu ne ah man de bi Jabel demee laa wéet dama koy fekki moom ko fii ci buntu kër gi xam nga da nga bari xarit mais dafa am koo xam da ngay am cofeelam Jabel nag ko nit ku baax nag bëgg maam góor gi lool Jabel bëriwul ñu bari foog ndey bëri bëriwul da ko doon dar rek moo tax mu ne ba jaral demee mbay man wéet naa sama ram dafa dox sama ngi sax dafa sotteeku karo muy assurance Diop Ngor ba Kanji Habib Gueye Daaf Da Silva maa fekke ak Pape Touré booba temps Fass dañoo bokk benn dank nag bokk ndey ak baay Fass yooyu jamono bu ñu leen bëri Fass ngay am nga am nga am nga sérieux problème ndax booba temps Fass dañoo déggoo nekk benn léegi sax la xaw am benn affaire boo xam ni. mi ngi xaw a mi ngi xaw a effacé wu tuuti mais nekkaat nañu benn ñoom ñëpp waa Fass ci Moussa Gningue Moussa Gningue moo daan tuur mbéy kay sow mi ñoo ñëpp élève doomu maam góor gi la ñu maam góor gi bu may wax ci carrière am yaakaar naa fi laay fanaan ndax bu ko El Hadj Alassane Diallo naan ko l'enfant chéri de Dakar Ameth Diène mi ngi toog El Hadj Lamine Diack mi ngi toog maa fekkee Ablaye Fafana maa ngi toog ci foyer France Sénégal bi sànni gërëm affaire ma lacrymogène lañ ma woo sama kër sama sama sët feebar ñu woo ma ni ma maam góor waa wàññi man ah benn journaliste bëgg ma seet si kër gi man ko non bu ñëw ndax boo ñëwee day mel ni affaire ru xale yi sànni xeeree tax may ñëw bàyyil busu suba nga tëj dëj ba man la journaliste ñetti journaliste woo nañ ma sama kër man ñu bëgg a ñëw man leen déedéet bàyyi leen bu suba ba ñu rob ba ñëw bi ma ñëw tam la ma wax ñëpp dégg nañ ko dama koo xam ca ba ci fula jaag fayda ba dëgg mu naan soppee Jamil maa bëgg Jamil mu ni ma signature contrat yi xale yi li ñuy wax dafa ñaaw sëñ Mbacke Soxna Lo xam nga ku mu bëggoon maam góor gi Njaay mii maam góor gi moo ko ni si ma war ma ca ndaam gaydal borom ndaam fas waa nga ndaam taalibe Jamil laa waaye maa la bëgg koo bëgg-bëgg na la maam góor gi wax loolu maa fekkee xam nga kooku day daan rafetal rek buy bëre moom it day tudd yàlla bu baax a baax mu ne ma saafara yi ñu laal yu bari di sotti butéel yi jaru ko su ma la masaan song rek nee naa jamil soppee jamil maa bëgg jamil te bu daanee dee daan ci jamil kon soppee jamil loolu ba dem te waa Sidi Jamil nag waa kër Sidi Jamil toppatoo nañ ko ñoo ko jullee ñoo ko yóbbu ba ca armée kon gàcce ngalaama ci waa kër waa kër Jamil jooy naa sax keroog xam nga fan laa jooyee keroog bi mer bi wàññi ko ñu tëkk ci puus puus mu day dem. mu siisu ni day dem ma ko mu ne ma damay dem soxna si solante wuñu ñu bi guddi yàggul dara yàggul mu ne ma damay dem il faut ma tiim Binta Diouf bu masaan bàkku danaan yaaram baa nga faas Binta Diouf a baax baax du weesu baax Binta Diouf a baax xam nga loolu semaine dafa daw waa kër Faat si itam toog nii Faat si mu ngi yowoo ci kër gi yaayu ñii ñii tamit mu jëwuñ puso bu mu reer ak suñu maire bii gay sër bi mu ngeen woon ni wax dëgg kii moo ko jox sër bii nekk bi moo ko jox kii ne mu xam samay waajur ñoom day pend mbay ndey awa mbay ak waa kër Badara mbay kaba moo tax muy sama yaay nag nekk nit ku baax di bàjjenu xale yi waaye waa kër fàtt yi mu julli puso bu mu réer ak waa kër ndate ak ñi mu bokkal ndey ak baay yëpp ñu mu bokkal ñu bokk ndey ak baay ak ñi bokk baay mënoo koo xam dafa dem ba tiim ko ci armeere maa fekke foofu jooy naa barki dem tam jooy naa jooy méttee méttee dama xool góor gi bu yàgg la ñu toog fii ci biti rek ba ñu dem palais ca mbër dafa ñëw président Macky Sall di ko foo jaar bàkku sa bàkk laa gën a dégg mu bàkku foofu damaa jooy ak faga faga de faga de ba mu ñëwee après la faga de moo jëkk a gaañu moom mu doog a gaañu nii mais góor gi mënu ma koo fàtte saa yi ma jógee maire dañuy toog ba guddi ma julli doog a ñibbi mu di ma solal man ko papa man dama jóg Côte d'Ivoire ñàkk sama alal yëpp ak jamaa ba ma mais yàquwoo gëmal yàlla day baax ci loo dugg communication traditionnelle day baax yaa ci mairie bi day baax du jëw du wax lu ñaaw bu gisee ñaar yu xuloo mu réparé moo tax war groupe capable kon ñoom ñëpp ña dem yàlla yàlla xaraaj ci barke Seydina Muhammad loolu rek la woon ba salaam parce que ñu bari ngi lay xaar bëgg a wax parce que bu ñu bëggee wax ci moom yëpp yëpp day day fanaan na gàtt rek yàlla jàmm yàgg. Euh, loolu di wone rek cofeelam ci soxna soosu. ah oui oui ku baax la woon. Mhm. jigéen ju baax la moom jabaram yëpp a baaxoon sax jëkkëram yëpp a baaxoon amoon na sax benn femme bu ñuy wax ndat jabaram bu ñuy wax ndate jaañ kooku tam génn adduna am na ku ñuy wax ndey faal. Mhm. kooku tamit génn àdduna. mais gis nga kii ki mu mujjeel fii kooku moom kenn demul bu des yàlla na ko yàlla xaraajal. dafa daan wax ba sa jabar jooju bi mu gaañ génnee. màkk yi ñu ñëw dem fekk ko mu nekk ci lalam tëdd. bi ñu ñëw nuyu ko mu ne ah Binta dem na de rek commencé di ko bakku di wax Binta ma Njaay Juuf yàlla na ngay maam. Oh. ci ba Samba mi. te mi ngi feebar. boobu mi ngi feebar tëdd moom. femme bi ñu jël ko indi ko ci morgue bi ñu ñu jëg ñuy dégg dem fa mu téye kii ci loxo di wax lool ndeysaan. xam nga ne kooku. ku am woon ci trop. Mm-hmm. dafa yàgg ak moom. moo jur xale yi yëpp ci biir kër ndeysaan nga gis nii nii yàggul dara ñoom ñaar 49 jours lañu rawante 49 jours lañu rawante waaw muy lu metti ah, yàlla moom mhm. bu nag bëggee bëggee kenn du kenn du xëccoog moom mhm. Mhm. Euh, papa bu ñu newoon tey ci souvenir anecdote loo ñu mën a nettali lu la marqué ci moom loo xam ne doo ko fàtte ila yomi diin dama ànd ak moom benn dëkk bu ñuy wax ngin gi néew ngin gi néew ànd ngin gi néew mu fexe ba takkal ma ay sér <laughs> may wër ci géew bi xam nga waa looy ñu yore bu ñu dóor may jàpp sama loxo di def nii di def ni mbëri waa Dakar gaa yëpp gaaree taxaw di wax ne ey waa Dakar yi ku ñu jàpp dañ lay rey dóor rek la ñu mën te man boobu du ma mbër <laughs> waa Dakar ku ñu jàpp dana la rey après ma ñëw toog xanaa boobu da ngeen doon comme moom. non ñu entraîné ñun ñun foofu fu la ñu def ma ñëw toog nii waa lamb ji déplacé wu. ñu fekk mu toog. dal na ko sa gos bi lañu bëgg mu bëreel ñu dimanche. yàlla. xoolal gis nga lu yàqal loolu. maam góor gi lamb ji ñooñu ay trente mille lañu ñu fay maam góor gi pour dégager leen mu leen day may day may fay cent six cent mille gars yi nag loolu mooy mënuñu ko après ñoom ñu dem. li ñu demee daal di def seen publicité dal di def ne Abdou Aziz Dabakh te ñu koy woy Kaani. mooy bëre waaw moo war a bëre ak kuy benn mbër bu ñax kuy mbalka ma dem toog sama kër yaa ngi may dégg de ma dem toog sama kër ma dem toog sama kër maa ngi sama néeg di nelaw boobu Ablaye Nar Samb ak Tafa Ndiaye def publicité ma dégg ñuy wax ah lamb ji rëy moo fi am kaani moo war a bëri ak kuy mbalka sama yaay ma ngi nekk ci ci perron bi di di mooñ ñi def de ah, kaw de xanaa war na wax mbër moom te boobu xamul ne man la maam góor gi lu ne defaloon nañu ko yàlla na ko yàlla xare àjjana papa loolu